mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci seen émission wax sa xalaat wax sa xalaat tey li ñuy waxtaane mooy jeux olympique euh, de la jeunesse yi nga xam te Sénégal moo ko waroon dalal ci atum 2022 euh, daal dinañ koy dàq euh, ba atum 2026 muy report boo xam te tey moom la ñuy waxtaane Mouhamed Telemi Diop nuyu naa la fay naa la na fii di nuyu internet yi comme ni nga ko waxee tey thème bu ñuy abordé muy jeux olympiques de la jeunesse yi nga xamante ne nii dañ ko reporté mën nañu préciser sax wax ne jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 bi waroon am fini au Sénégal donc mom lañu reporter ba 2026 mom lañu fassiyene waxtane yéene ak internet mi ngi non 78 150 74 72 ngeen wax ñu lan ngeen euh, nan ngeen gisee décision bobu non ñu daal di reporté euh, Jeux olympiques de la jeunesse yi ko 2026 itam lan ngeen di xaar euh, ci Jeux olympiques yoy non loolu yëpp mën ngeen woote ñu daal di ci waxtane euh, comme niñ ko waxee Elamine démb la décision bi daal di rot. Mhm. mu nekk décision boo xam ne itam njiitu réew mi moom moo ko jël Macky Sall ànd ceeg njiitalu euh, CIO du comité international olympique ñoom ñi am te ñoom ñooy organiser ak ki attribuer itam euh, compétition yi ñu daal di jël décision bi lépp rek dafay retrouver waat contexte li nga xam te moo di Covid 19 bi ba tax ay compétition yu mag ñu leen di dàqal. absolument ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga responsabilité boo amoon ci li nga xamanteni ni moom euh, Jeux olympiques de la jeunesse yooyu donc président de la République du Sénégal moom en tant que euh, chef suprême de la constitution tey mu war a euh, mu dëkkam war a dalal lu mel lu toll noonu Jeux olympiques du caaxaan. Mhm. donc c'est pas n'importe quel pays lañ koy organisé aussi. ba pare si n'importe quelle condition. donc tey moom en tant que président de la République mu accepté woon li nga xamante ne nii. Mhm. moom mooy Sénégal mu recevoir li nga xamante ne nii moom Jeux olympiques mhm. donc déjà c'était bien mais. Euh, moom tey jii daf ci am wàll bu rëy le fait que mu bokk ci décision boobu na parce que dëkkam réewam moom moo koy organiser ki nga xamante ne nii moom mooy euh, waa CIO ñoom aussi ñoom ci ñoom ñooy organisateurs yi en tant que tel sur le plan sportif laa mën a wax mm-hmm. ñoom ñoom ñoo gérer compétition bi mm-hmm. ñoom aussi bokk ci ñi nga xamante ni dañ jël décision bi mën naa ne ñoom la avec le président de la république ñoom ñaar a jël décision boobu noonu mm-hmm. pour que ñu repousser li nga xamante ni moom mooy jeux olympiques de la jeunesse euh, yu 2022 Il mu a ne de soulagement pour le Sénégal mhm. je dirais pas euh, avantage mais plutôt ouf de soulagement peut-être ouf de soulagement en tout cas c'est une conférence de presse bi nga par le euh, comité d'organisation jeux olympiques 2022 de nañ ko ministre Matar Ba mi ngi fa woon Soham Wardini maire Dakar itam ki nga xamante euh, Mon mooy euh, président li nga xam te moo di CNOS euh, coordonnateur COJI bi plutôt excusez-moi mhm. waxtaan nañ en tout cas que ni pour wax que di report bi dafay may Sénégal quatre ans de plus pour mu mën organiser li nga xam Jeux olympiques de la jeunesse parce qu'on savait que les 2022 le bu ñu ko poussé ba 2026 ça fait encore quatre ans yoo xamante da di permettre ñu organiser Jeux olympiques de la jeunesse yi temps bi moi mooy mooy avantage bi jamono ji absolument temps bi moins avantage si ñoom mais tout en sachant que Brune a ay li nga ni ne a mën ay lacune yu amoon ci euh, ci li nga xamante organisation Jeux olympiques de la jeunesse 2022 ici à Dakar donc tey ni na fi pour dire vrai le fait que ñu reporté ko heureusement pour le Sénégal parce que gàcce bu moi moo ñu naroon dal gàcce bu rëy mooy tey jii buñ ko organisé woon euh, sénégalais yi dinañ am gàcce mm-hmm. li tax ñi waaw li tax ñi am gàcce je m'explique nek na compétition bu reuy bo xamanteni ni côté communication biñ ci wara a def defuñu ko ci benn. Mhm. donc tey jii nii doo rombee sur trois sénégalais boo leen laajtee Jeux olympiques de la jeunesse kañ la ak fan lay am deux dinañ la ne xamuñu ko benn mo la ci tontu. loolu mhm. loolu lu la. Mhm. donc ñaareel bi moy tay côté préparation compétition bi nañ jël internet bi euh, bi après. allo salam alaykoum maaleykum salaam. al amin maa ngi lay ziar. di ziar di ziar ñëpp di ziar mbokk auditeurs yi maa ngi ci jàmm bu baax a baax waaye maa ngi ci jàmm bu baax a baax di ziar ñëpp di nuyu mbokk auditeurs mm-hmm. dama dama laa dagg sax waaye waru ma dagg ndax fi nga fi nga jàpp foofu ndayoon na. dëgg la ndax gàcce gi ñu naroon am moom. Mm-hmm. Covid bi Covid bi surtout suturaal nañu <laughs> ndaxte jeux jeux olympiques euh, euh, kii bi boo xoolee organisation bi mhm. man damay naan exemple la woon pour wone Sénégal ba xam mën na organiser Coupe d'Afrique est-ce que mën na organiser yenn yenn yenn yenn grand grand kii yi quoi nu mu tudd programme yi est-ce mën nañ ko organiser compétition majeure yi maanaam voilà mais gis na buñ ko buñ ko buñ ko bu mu fixé woon date date bi ñu fixé woon buñ ko maintenir woon waxuma laa gàcce de mais dinañ ko annuler parce que à l'ami lan lañ préparé lan dara am nañ piscine am nañ am nañ maanaam lépp loo xam waxuma ci benn benn cadre boo xamante ne que ni Jeux bi daf ko daf ko laaj te fekk am nañ ko bopp mais chantier mais yow ñaata chantier moo nekk Sénégal mu am ay mag yu yoo xamante ne que nii kenn comprendre ñaata million la ñu wax ne lañu def amitié mm-hmm. ci defaraat amitié ci defaraat ci non damay jox exemple na fi xam nga da ñun dañu toog di nax suñu bopp ba pare yaakaar ni ñu ngi réussir fekk réussir wuñ Cameroun problème boobu la amoon mm-hmm. boo gisee ñu reporté euh, Coupe d'Afrique bi daaw daawaati parce que seen dirigeant yi xaalis fi ñu ko war a dugal ñu ko ci wër dirigeant africain yi nag ñoo war xam seen bopp xam yoo xamante ne que ni mën nañ ko ubbee mënuñu ko am na yoo xamante ne boo ko songee foog nga dem ci ba jeex boo xoolee Jeux olympiques bii nii billaahi buñ ko organisé woon ndax boo ma moytu di nga bàyyi journaliste sport <laughs> non je te le jure <laughs> mais mais mais xam nga tax ma koy bàyyi parce que dañ ci am gàcce uh-huh. am na benn waa bi nekk euh, kii nu mu tudd wal fajri nga jégoon ci ci kii bi ci pub bi. gomis euh, ki affaire gomis. mais waa ju ma neex la parce que moom réalité bi lay wax dëkk bi lay wax. Sénégal nañu waxante dëgg te yàlla tax. Mm-hmm. fulaaluñu sport sport ci boppam lañ fulaalu. Mm-hmm. benn sport lañ fulaal muy làmba. Mm-hmm. te fi ak ñu ngi ci loolu ne la leen làmba rek la ñuy gañ xam nga xam nga saa. amul lépp. li hmm. li firndeel li ngay wax mooy man dama jàpp ni Jeux olympiques de la jeunesse bi ah, dafa nekk benn événement hmm. boo xamante dañ ko xaw a politiser ba nga xamante day suul euh, travaux yi nga xamante euh, ci la ci la comité olympique bi nekk. parce que tey rek. bi ñu ci conférence de presse bi. ñëpp dañoo dañoo hmm. visé woon li nga xamante moo di euh, stade olympique bu ñaajo bi. alors que stade olympique bu ñaajo bi dañ koo wax d'attaque rek.

ba sénégalais dañuy dañuy dañuy réer ci mbir mi parce que tay bu ñuy wax ay ay stade amitié di wax ay stade Demba Diop nekk na ay yoo xamante uh-huh. tey état bu Sénégal moom moo ko war a lijjanti mais c'est pas ñiy uh-huh. organiser comité olympique de la jeunesse moo tax sànq ma la doon wax ñi ngi ci chantier ndax stade Iba Mar Diop ak ak tour de lëf boobu noonu yépp ñoom waa comité olympique waxuma état bu Sénégal de waa CNOS ñoom ñoo dem woote ci seen partenaire ci France indi leen pour ñu defar foofu donc c'est deux choses différentes yoo xam te il faut que clarifier mbir mi pour ñu xam ne lii la état moom lii la konos moom ci mbir mi. mais mais mais état da ci dugal loxoom na fi. moom laa lay wax ni xam nga Sénégal moom lu yàqu rek politique a ko yàq. voilà foofu laay jëm ci yow billaahi baat boobu rek baat boobu bugguma ko tudd balaa ñoo naan da ngay politique. Mhm. problème bi foofu la. man yaa xam naa ne comme que deux mille vingt six la ñu wax yàlla bu mu fekk nguur gi sax parce que nguur gi moom lu ma dégg ci moom doy na ma sëkk ci <laughs> <laughs> <laughs> balaa ñoo naan ci politique bi lañ nekk mais sport bi dañ ko war a jox gëdd bi ñu ko war a jox mhm. comme que am nañ plus de quatre ans waat comme al amin fi mu nga jàppoon continuer foofu noonu mhm. baaxoon na trop nañu fexe ba teel a xam lan moo waral jeux olympiques nañ ko nañ ci def li ci war ba mhm. bu jotee duñu am gàcce maa ngi toog di taaxeelu bu baax a baax mais fi nga fi nga fi nga commencé waxuma alamin wax dëgg yàlla di bëgg moon dugg sax mais d'accord comme que sama sama sama poste bi dafa poussé ma ne xaam profité dugg parce que fan yëpp dugguma quoi dëgg nen enchaîné ak allo waaw salaamaaleykum waaw al na fi na ngeen def ñu ngi ziar bu na yàlla nangu ziar maa ngi si jàmm démb danga ngaa wax waaw maa ngi rek da wax jooy après dem bi man pour man sax woon bu feree da nga duggaat waaye da ngaa continuer jooy waaw seetaan seetaan na seetaan naa ba mu jeex nag waaye xam nga rek moom xool bee feesoon quoi <laughs> bëggoon naa la jox mouchoir da mu woon mouchoir quoi waaw waaw yooyu xam nga yooyu moom ci àdd dëgg la Iba da nga takk ay écouteur wala déggante bi neexul de d'accord d'accord c'est c'est bon maintenant baax na waaw waaw là c'est bon ah ok d'accord loolu moom ci àdduna lay bokk ñu ñaan yàlla mu bañ mu bañ a bari rek léegi <coughs> xanaa ñëw ñëw ci ñëw ci teemu tay bi rek ci mm-hmm. al a amin li nga wax ni gàcce yi naroon dal xam xamoo li ngay wax sax mm-hmm. man waxuma waxuma sax waxuma sax côté infrastructure yeeg yooyu gis nga waa ji génn léegi mm-hmm. nee na mi ngi wax naan Sénégal sport yi làmb rek lañ ci fulaal làmb sax fulaaluñ ko Sénégal sport sport en général lañ fulaalul léegi Jeux olympiques euh, JO de la jeune ñan la entre personne yam entre 15 euh, ans ba 18 ans mm-hmm. légui yeen en tant que journaliste sportif wax leen ma ban compétition junior à part football ngeen mësa dem couvrir da fay amul jeex na légui yow bala ngay organiser dara day fekk nga am athlète ngay fekk nga am athlète yu mag ba pare balaa gàcce gi ñu daloon ci tournoi box bi mm-hmm. amul benn sénégalais bu box ndax ay problème licence ak yi kenn xamul gàcce gu raw boobu mooy naroon dal gis nga man dama dund benn dama dund benn exemple fii ak triathlon Sénégal dañoo envoyé benn équipe triathlon ci Jeux africains yi mhm. léegi bi ma laajee euh, seen euh, président bi mu ne ma fa am benn fa mu ne ma ñu koy préparé xale la mais pour pour pour pour vous dire niveau yi ni mu toll gis nga ay marque yenn dëkk yi ak Centrafrique ñooñu ay junior ay junior lañ indi mais ñee seen athlète ak na ak na ba sangu ba añ ba sol ay yéreem ba toog ñun suñu athlète mënul accès mhm. gis nga tey tey balaa ñuy jël décision di organiser dara nañ jéem a réformer sport bi fulaal ko mhm. bu njëkk ba da doon bu njëkk ba man ñii dama naan dem Mouhamad Diop dem di seetaane athlétisme dem feneen ak feneen yooyu yëpp yooyu yëpp da doon dox escrime escrime da doon escrime dana yow xoole xoole escrime médaille yi ñu daan indil Afrique déggatoo escrime fenn amatul mhm. te te lu dox la woon athlétisme amatul boxe boxe boxe am boxe amatul natation lan moo fi am ay Dakar Gorée Dakar Gorée loolu tey tey tey li li li li sam benn copain di ma wax naan ma yéen yéen af yéen yéen sénégalais yi ndox mi bu amee couleur rek dootoo leen fii géej rek ngeen mën bu ngeen ñëwee piscine du ngeen def dara donc ya ya trop gis nga li li na fi wax rek affaire bi politique bi moo ëpp sport bi mhm. te Sénégal tant que arrêté tant wu arrêté di xalaatee politique mhm. duñu dem duñu duñu dem ñun ministre sport bi gën a politique la ñu am mhm. xam nga lan moo gën a dommage instant bi xale yi nga xam te ñoom ñoo waroon bokk ci compétition 2022 bi ndax dem euh, jeux olympiques de la jeunesse quinze dix huit ans la xale yi nga xam te ñoom ñoo waroon bokk instant bi nii 2022 euh, dina leen fekk ñu dépassé âge bobu noonu wala ñu tombé ci juste euh, tay ban politique lañuy lañuy and la xalé yi parce que tout le temps boy wax temps bi temps bi dañ na la pour infrastructure mais tay sportivement est-ce que tout le temps ñun dañuy organiser pour di wax ni pari de l'organisation lañuy lañuy lañuy ñuy en fait c'est que euh, xam nga le problème en est que Djiba tay jii damay man exemple bi may gëna joxé moy bo xamanteni euh dama ci waxtaan ak un athlète mhm. sénégalais Balla Dieng mhm actuellement c'est le président uh-huh. de la fédération sénégalaise de taekwondo. Uh-huh. Balla Dieng uh-huh. def na Jeux olympiques. bi muy def Jeux olympiques. laaj ko après Giba, boo beaucoup woowee nga laaj ko. ban accompagnement la venant de l'état du Sénégal. ban prépare bi préparer Jeux olympiques préparation personnelle la def. moom moo wadjal boppam. moo financer bokom. moo ci def la mu ci war def. donc ki nga xamantene ni mom moy mooy euh, Balla période bobu noonu c'était très compliqué pour lui et ce mhm. sera la même chose avec les avec les autres athlètes mhm. mais mais Balla Dieye li ko dal non li ko dal non li dal Balla Dieye sedd na de mo wax la lu pire lu xewoon fi ci Jeux africains yi athlète bi waroon ñeu représenter Sénégal ci triathlon bi kenn déclarer ko ci xam nga marocain mom amul ay affaire Sénégal li lijjanti dugg mhm. turam nek turam nek fi dañ ko bàyyi ci mbedd bi la fanaan imagine ko war a compétir fanaan fanaan ci mbedd il a fallu kenn ku ñëw benn euh, dirigeant ñu àndaloon mooy yaakaar naa xari infirme moo ñëw fanaan ci mbedd bi ima mënuñu mënuñu mënuñu ba pare bëgg bëgg di def balaa ñuy def dara nañ nañ réformer sport bi jël sport bi delloowaat ko ci école yi nañ intégrer sport ci école yi dès le bas âge primaire ñi mën daw ñu xam ne ñii ay dawkat lañ ñi mën tëb ñu xam ne ñii ay tëbkat lañ ñi nekk ci école yi di xeex rek ñu jël leen di ñu dem def di lutte ay bëri bëri bëri bëri bëri Sénégal lan la bëri. mais ba tax ay CEDEAO wala kii mais au delà de ça sax ban politique sportive la ñu mettre en place pour préparer les jeunes athlètes. tey jii nii amul benn politique sportive boo xam te ne nii préparé nañ ko pour xam nga 2022 bi nii nii nii nii ni mu jege woon nii. Mhm. man gisuma benn politique sportive bu ñu fa defoon pour préparer les nos nos jeunes athlètes.

kenn préparé wu leen benn loolu mooy benn ñaar bi mooy infrastructure yi yii bañ ñu tudd infrastructure yi fii nii bu ñu fi defoon jeux olympiques de la jeunesse barke yàlla gàcce gu rëy ñu moo ñuy dal ndax Léopold Sédar Senghor baaxul Iba Mar baaxul jii nii euh, stade olympique jam ñaajo xamuñu kañ lay pare de chaque fois chaque chaque année ñu jox ay stade olympique moom vraiment jar jar sa teg teg xalaat fu ne nii. dama ah, ñun ñun xam nga fan la suñu xel waroon teeyee

mondial biñ mujjee dem Russie mhm. man fi min man fi mu nekk damaa yaakaaroon sax élection moo fa am man sama copain yi nekk APR yëpp ñu ngi ci avion yi dem mhm. donc euh, ñi li ñu war a def duñ ko def. noonu la ñuy mobiliser wu noonu lañ waajalee pourquoi duñu def la même chose avec yeneen discipline yi pourquoi duñu def la même chose ak organ ay Jeux olympiques xoolal par exemple sénégalais xamuñu sax Jeux olympiques de la jeunesse deux mille dafa naroon

day fekk man pour man dañ ko jël dañ ko jël yow dañ ko jël pour man si man sama xalaatu bopp c'est c'est strictement personnel pour man dañ ko jël pour politiser ko man loolu laa jàpp non c'est c'est c'est c'est c'est juste c'est juste c'est juste c'est juste politique xam nga ne xam nga ne ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay wan ne suñu ministère yi tout est politique mooy fu ñu jëlee suñu ministre bi def ko meilleur mana meilleur manager sportif de ne xaw ma ay naa dañu war ko defi ji xaw ma fële Euh, Rwanda tey tey suñu ministre bi ban réforme bu am doole la def lu xamante ne kii war nañ ko wax ni c'est un manager sportif à part nekk ci à part nekk ci presse di wax maa may mbër bi cinq cent mille maa dimbali kii maa def day soxlawuñ soxlawuñ ay dimbal euh, xamuluñ soxla teg ay acte gis nga ci ci ci titre boobu noonu ñu décerné ko xam nga Sénégal y a un problème en fait xam nga tey mm-hmm. ñoom ñoom ñi nekk à l'étranger peut-être décerné ay titre ñi nga xam te ñoom ñoo nekk fii ci biir Sénégal xam lan la ñuy gis cohésion bi nga xam te ministre bi am na ko ak président fédération cohésion bi nga xam te am na ko ak ay entité yu mel nii euh, voilà mm. yooyu yooyu lañuy xool mais tey jii nii bu dee mm. président fédération bi wax na ni amul benn appui boo xamante jot na ko te bàyyi maslaa bi muy def ak ministre bi laa dinañ mën a wax que ni lii nii nii nii la demee mais tant que ñu ngi dem ci euh, euh, ci cadre maslaa bi président fédération bi du nangu ni discipline amna ay problème et que état bi da cee waroon jàpp te jàpp ci donc facilement il va passer pour le meilleur manager c'est tout ça. ah en tout cas dal en tout cas dal ñom tamit bu ñuy laajte nañ laaj nañ laaj nañ laaj ñiñ war nañ laaj ñiñ war a gis nga sport Sénégal ci mbuy bax la amul dëkk bu sedd yépp yépp yépp am problème suñu fub suñu suñu sunu fub sunu football baa ni nii di yànq làmb ji làmb jaa ngi làmb jaay ngi nii bu njëkk ba ténor yi dañ daan bëre décembre bëre juillet léegi mënatuñ ko tey euh, bas basket baa ngi nii sa mooy sport bi ëpp coow Sénégal suba nga dégg Baba Tandian ginnaaw suba nga dégg kële professeur Kay ginnaaw suba. en fait ba pare li ma li ma li ma jaaxal li ma jaaxal 70 pour cent des des des présidents de fédération sont des hommes politiques loolu ça pose problème 70 dix loolu en fait il faut que nous on il faut qu'on en parle en fait il faut que nous def la part des choses entre le politicien et le président de fédération quand le président de fédération mm-hmm. est un homme politique ça devient très grave s'il dirige vers l'essence de la fédération, il dirige ko war diriger mm-hmm. tu vois un peu <coughs> mais quand le président de la mm-hmm. fédération dafa un ci parti politique ou le le président de la république c'est tout à fait normal que du mën critiquer du que ne état bi état appuyé c'est tout à fait normal parce qu'il est avec le président c'est simple malheureusement ba pare ba pare ba pare autre loolu loolu loolu c'est juste côté dirigeant yi am na lu gën a garaaw tey sport yi fii ne sport yi fii nekk yëpp ñan ñoo koy diriger tey dañ Sénégal dafa mel ni dañ ne monopole dañ ne ni prof EPS yi dañoo am monopole sport biir Sénégal dafa mel ni ñoom rek ñoo war a ñoo war a lépp boo xoolee tey sunu direction technique beeg que ça soit côté football ñi ngay gis ñëpp presque ay ay ay prof EPS la ñu jël tey ñi nga xamante ne dañoo génni woon jàngi ñëw kenn du leen Sénégal kenn du leen jox valeur kenn du leen jox valeur te ñi nga xam ne yeneen discipline tamit dañoo dem ngi xam-xam ñëw kenn du leen jox valeur Sénégal pour ñoom sport ku génnul INSEPS xamoo dara donc tey tamit tant que ñi ngi demee noonu tey niveau biñ soxla niveau biñ soxla duñ ko am parce que tamit sport dafa soxla expertise extérieure li nga doon wax keroog ci Aliou Cissé il a besoin dem di seeti les grands noms. Mhm. di waxtaan ak ñoom noonu la demee ci discipline que jëluñu affaire yi décentraliser ko de un décentraliser connaissance yi jël affaire bi génnee ci politique hmm? jël les hommes qu'il faut à la place qu'il faut bañ bañ a jël équipe yeeg discipline yeeg di ko mm-hmm. duñu ba pare débat il faut que tamit ñu ñu waxanté waxante dëgg. africain sénégalais dafa bëgg nguur. tok ci ben mbir diko ah. diriger cinq ans dix ans dañuy waxanté dëgg. mënul né ah. mënul ne da dapat dem ba nekk da ngay da nek nekk en en panne da nek nekk en panne d'inspiration. di nga di nga formule bu nek du marché. 15 ans 10 ans nga koy diriger benn mbir dañuy wax dëgg nek. di du dem bi ah am na ay xale yoo xamante ai ai ñu ngi tey ñu ngi jàng ay ay ay métiers yoo métier sport la ñu koy di ci am mhm. ay master ñi nek ay doctorat mais tey jii nii ñooñu Sénégal la soxla y a des y a des y a des avocats yoo xam ne tey jii nii ils sont spécialisés dans le sport tey y a des des gens yoo xamante ne nii marketing sportif la ñu jàng ala ñu ñooñu pourquoi duñ leen jël ci instance yi ñu liggéey. ñooñu ñoo ma jox la benn benn exemple management management FIFA bi amoon bi ñu defoon teeru bi. te remise de diplôme ñu ko doon defee teeru bi. tey ñi ci génnoon koo ci gis tey ci benn instance personne man am na ñoo xamante ne ñi ma ci xamoon ñii ay ay ay ci ay usine soow la ñuy dem di liggéey di nekk ay livreur ñiy def ni ñiy def nii te dañoo jël seen xaalis fay je te jure ñu bëri xam naa mes amis ñu bëri ñu ngi ci woon ñii dañoo obligé dem di liggéey ay di liggéey ay centre d'appel yi nekk biir Sénégal fay seen cinq cent mille mhm. donc affaire bi daal pour pour mu pour mu dox daal il faut un ndëpp national du sport d'accord bila léegi maa ngi ma bàyyi leen balaa mu gën a guddi parce que am na nga xam ne dañoo bëgg du l'essentiel daal yaa yaa nañu yàlla jàppale daal may ñu xolu muñ ñun ñu bëgg sport te xam ne lu naqari rek lañuy gis jërëjëf mi ngi noonu 78 150 74 72 ngeen ñëw ñu waxtaanee li nga xam te report Jeux olympiques de la jeunesse yi ñu jëlee ko 2022 yóbbu ko 2026 lan ngeen ci xalaat ak lan ngeen di xaar itam ci organisation boobu je pense que ni tey jii bu amoon. 2022 euh, peut-être l'un rek moo doon point euh, point positif et moins. stade euh, Iba Mar Diop dinañ ko défar côté tour de l'œuf bi dinañ ko défar ak yenn ci infrastructure yi nga xam te ñoom ñoo accueillir parce que Dakar la woon Diamniadio ak Sali si je ne m'abuse mais pour le reste yëpp que ce soit côté côté côté sportif euh expérience peut-être lañ ci am entre guillemets mais Sénégal est bi nii Elamine man ci li ma gën a tiit sax candidature yi ñu doon wax non pour ay. man en fait moom moom moom problème mooy. pourquoi ñuy bàyyi ba war a organiser compétition di defar stade yi. Mhm. stade yi est-ce que pour compétition yooyu kese la après mu mhm. jeex. Mhm. maanaam stade dañ ko war a defar. pour le sport pour les sportifs bu pare mu am suivi am entretien. mais parce que Jeux olympiques de la jeunesse mi ngi ñëw rek ñu ngi defar stade yi. mais bu dee yow tout le temps da ngay jooy di jooy nga ni amoo xaalis te organisation bi dina la permettre nga mën a rénover looloo tax ñu bëri di jël ay candidature non. comme par exemple Guinée vous organisez car mais c'est parce que dafa soxla infrastructure mais Guinée comme tàmbali na waaw moom moo beaucoup mu ni Sénégal mais tey jii nii ki nga xam te day organiser ñoom sax wa waa euh, COJO bi loolu lañ doon wax que héritage lay doon mais pour être crédible ma fi mhm. il faut avoir d'abord d'abord ces infrastructures pour que vous ñu la compétition bi au moins les plus loin def sax peut-être da ngay ñëw nga rénover wala nga mottali nga Mais... pour être crédible je veux dire mhm. mais il sa dara baaxul mhm. nga bëgg a encaisser xaalis bi pour soog

des centaines de millions pour defaraat stade pour Sédar Senghor stade Iba Mar Diop ak yeneen stade ab bien avant ñuy wax waxi Jeux olympiques de la jeunesse. Mhm. kon ça veut dire que dépendre à la base dépendre ñu woon ci Jeux olympiques de la jeunesse mais bu ñu bu ñu bu ñu jëfandiku woon ci loolu kese kese kese heure bi ba fi may wax ak yooyu stade yi parewul. moo tax bu fekkee kenn defaru ko. peut-être candidature bi aussi daf leen di aider en tout cas yooyu yëpp ay politique là pour mën permettre dëkk bi am infrastructure yi ci wàll. xam nga man daal man li euh, gis mooy mhm. sport Sénégal. gëdd bi ñu ko war a jox vraiment jox ñu ko. Mhm. waaw man man daal vraiment man loolu laa gis daal parce que tey jii gis nga li ñuy wax le sport dans un pays dafa bokk c'est un facteur de développement. Mhm. c'est un facteur de développement mais tey Sénégal tey waroon nañu dépasser cadre bi nii yëpp. Mhm. ak sport nu mu fi mel ak nit ñi nu ñu bëggee sport seen xol tey jii nii da ngay xool au niveau de la lutte basket football tey jii nii bu compétition yooyu bu amee te yooyu rek mooy ci gën a fës. mais dangay gis nii Sénégalais yi ni ñu ciy jafandoo ni ñu ci ni ñu koy approprié woo mais malheureusement nekkul loo xamante ne nii dañ koy dañ koy bàyyi xel ñun on préfère def ci yenn ay xaalis ci yeneen activité yoo xamante ne nii euh, Sénégalais yi duñ ci gis seen bopp ah que def ci loo xamante ni ñëpp dinañ dinañ ci gis seen bopp parce que tey bu fekkee yokk nañu budget sport mais mu am non mu budget sport dafa war a am lu mu àndal na fi xam naa nag tey dinañ ne élément dafa mer waaw dama mer mais budget sport dafa war a ànd ak tey jii nii mu am ay rapport yoo xamante ne nii ay rapport yoo xamante ne nii day am transparence ñu xool fan ak fan ak fan la xaalis di dugg mm-hmm. parce que tey jii nii est-ce qu'on contrôle l'argent qui entre ci sport Sénégal mm-hmm. ak fan ak fan lañ koy def mm-hmm. est-ce qu'on le maîtrise on ne maîtrise pas tey jii nii waroon na am ay rapport yoo xamante ni après tey jii nii am wala ay of nag ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dañuy ñëw ñu saytu sport Sénégal xaalis bi ñuy dugal ci biir fan ak fan lañ koy dugal ak fan ak lay jaar essence bu ne bu luñ la jox nga ñu génne yow de manière transparente yow lan ak lan ak lan nga jël ak fan ak fan nga ko dugal. Mm-hmm. man je crois que loolu noonu tey dina permettre budget bu sport bu amee fédération bu nekk dina ci dund. c'est comme fédération sénégalaise de football buy def assemblée générale bi. état financier yi nga xam te moom lay def ni yi moo nekkoon rentrée d'argent ak d'argent waaw mais mu am benn benn instance bu ñëw di ku ci nekk mu dem mu ñëw mu auditer la mu xool tey Sénégal da ngay dégg ni milliard dugg na fi nangam nekk na mais yow budget sport dafa néew mënul mënul mënul subvenir lépp li nga am yow da nga am ay champion d'Afrique yoo xam judo am ay champion d'Afrique yoo xam taekwondo am ay champion d'Afrique ci football am champion d'Afrique ci nangam ak nangam ak nangam mais tey ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ci ay judo nekk ci ay taekwondo mais ñoom bu dul woon CNOSS dañu am ay bourse d'études mhm. dañu mën a mhm. a ay open pour mhm. préparer a mën a du am appui bi ci war ba noonu lay ñàkkee titre bi keneen keneen ñëw ci ku nekk xam na ci classement mondial bi ranking la ay points la points yi da ngay dem jël ko ci open mais pourtant fii nii dégg nañ fi ministère des sports ñu ni open yi ay kii privé la loolu mënuñu ko jàppale parce que seen doole eggul foofu noonu mm-hmm. comprendre mm-hmm. c'est tant tant tant de choses yoo xamante tey Sénégal man je me dis Sénégal acteurs yi maanaam footballeurs yi basketteurs yi ñoom ñëpp ñoom ñoo def sport Sénégal mm-hmm. tey booy dégg sport Sénégal ci àdduna bi ngay dégg football numéro un ci Afrique di dégg basketteur mu dem signifié Asou Traoré ñëpp di ko wër ñoom ñoo ko defal seen bopp liggéey la boom te ñoom ñoo ko defal seen bopp du ministère moo leen fa fekk du état moo leen fa fekk léegi nag. bu ñu amee ndam. li njëkk xalaat mooy dem présenter ko le président de la république. Mhm. équipe nationale beach soccer. mais yow gëj gis sportif buy dem di di présenter. waaw mais équipe nationale beach mhm. nañ fi coupe d' Afrique. Mhm. sori nañ fi coupe du monde bi ñu indee trophée bi ñëw nañ fii Wii Sport waxtaan ak ñun seen capitaine ñëw nañ fii Wii Sport.

mais nguur gi defu ko malheureusement mom fofu lay waxe reconnaissance de nos sportifs sunu sportifs yi tey jii reconnaissance bi war ci ñom amuñu ko dañuy waxante deug rek. non man je suis d'accord sur le fait que xaalis yëpp bi ñi dégg que ñu ngi koy investir ci yeneen domaine comme bu politique joté bu bu campagne joté xaalis yëpp bi ñi xam te dañ koy jël diko diko diko ko diko ko tasaare ngay dégg de telle somme wala parfois nga dégg ni nit ki ni fekk nañ ko ak nangamu xaalis muy xaalisu nguur bi tay loolu am na lu gën a urgent loo exemple exemple euh, euh, euh, campagne électorale football président de la république les acteurs du football local. Mhm. mu dage club mu mu non grand théâtre mu grand ligue sénégalaise de football professionnel Sayer les vous parole mais wax li nga cri de la défense. li nga xamante ne ni moom tey jii di football local bi difficulté yi mu nekk di dund. ak le fait que tey jii nii problème Star Times ak ligue sénégalaise de football mu wax que ne président jël engagement ne moom dina leen woo dina leen woo autour d'une table ñu waxtaan dañuy trouver solution. pour que vraiment football local mën na bénéficier wu ci ay part ci partenaire boobu noonu. mais tey ba fi may wax ak yow nii. football local mi ngi continuer. dund ay difficulté ay ay ay ñu ñu ñu boole rassembler acteurs football local bi yëpp yóbbu leen grand théâtre mais tey ji anam. te te te problème yooyu yëpp état bu Sénégal leen ko teg nax bu ñu leen ko fi bàyyi woon ak Star Times xëy na koppar yooyu noonu ñu doon jot dina leen tax ñu xaw ñu xaw a souffler tuuti. waaw tey doo dégg joueur bu souffrir wala joueur boo xamante ne nii. ah mën a être dina am lu dugg ci club yi président yi mën a di fay seen joueurs yi normalement. Mm-hmm. mais tey jii nii loolu yëpp dafa répercuté ci acteurs yi. Mm-hmm. en tout cas li ñu bëggoon euh, ngeen attirer ci seen attention mooy bu ñu waxee report bi ba tey ñu ngi dégg ñëpp naan stade Diamniadio euh, bi. Mhm. ndax dina pare ak boobam déet. Euh, tey ministre Matar Ba ci li nga xamante moom la wax wax kan wax na ni li nga xamante moo di boobu le stade 17 mois yi ñu wax pour construire ko. 17 mhm. mois yooyu noonu lay doon ndax selon une étude mais ak période li nga xamante moo di coronavirus bi. Mhm. dañuy commencé tàmbale di compter bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tàmbalee li nga xamante moo di moo di travaux. Euh, stade boobu noonu am te moo di jëm ñaajo réaction mhm. yooyu mën ngeen ko suivre ci suñu page YouTube bi mhm. yu sport TV mu nekkoon conférence de presse bi nga xam te tey buba ñu ngi koy ziar bu baax a baax mhm. buba gën nañ la dégg de ñoom organisateurs yi ñoo ko doon def mais alamin comme ni ma ko waxee rek il faut savoir faire la part des choses ci bu ñu waxee jeux olympiques de la jeunesse bu ñu bu ñu bu ñu topp mouvance bi nga xam te ñu ngi ñu ciy bëgg a yóbbu mouvance état état bu Sénégal wala wala politique bu Sénégal bi nga xam te ñu ñu bëgg a yóbbu ci jeux olympique de la jeunesse yi non dañ ko nar a jël mm-hmm. après. dañ ko nar a non dañ ko juste kaay moo fa Nafi mm-hmm. lan moo naroon xew. félicité Nafi dama lay expliquer lu naroon xew. Mm-hmm. Jeux olympiques organisation Jeux olympiques de la jeunesse. 2022 au Sénégal dafa naroon bokk ci bilan wu président de la République Macky Sall. en 2024 ou 2025. dafa ci naroon bokk ci bilan bi la naroon bokk. oui on a organisé les olympiques de la jeunesse 2022 à Dakar. dafa waroon bokk ci ci bilan bi. comprendre nga li mu la wax. c'est purement politique léegi nag tey jii nii on a on a on a on a lan un stade un stade olympique à Diamniadio yooyu yëpp ci bilan bi la bokk. Mhm. mais tey jii nii tey jii yan jou yan yan yan jeune sportif la ñu la ñu la la ñu préparé. Mhm. ci yan jeune jeune sportif la ñu def la ñu investir pour que bu ëllëgee ñu mën a représenter dignement le Sénégal bu ëllëgee ñu mën a indil Sénégal ay ay ay trophée mhm. gisoo ko. tey bu ñu ñu bu ñu naxee woon ci lu dëgër ci li moo di moo di moo di sport bi euh, nen lay demee. en bu fekkee am na video bu ñu mën a seetaan. mun nañu ko mhm. mën nañu ko ñu ñu may leen tuuti ci conférence de presse bi presse bi voilà déclaration euh, Matar bi bi mu wax par rapport ak euh, chantier yi xaar Jeux olympiques de la jeunesse 2026 yi mi ngi wax ni lépp dina pare fii ak boobu ndax am nañ 4 ans de plus pour li moo di organisation bu dee yemb na ñu daal di ñuy tegal réaction Matar Ba ministre Des du comité olympique. Je pourrais répondre, mais l'image là que vous voyez montre tout simplement la synergie qu'il y a entre le comité olympique et les collectivités territoriales pour organiser au nom du Sénégal ces Jeux olympiques. Tout le monde peut répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que les fédérations continuent le travail. Parce que les fédérations sont là pour faire de la promotion, faire de la détection, encadrer les jeunes, bien évidemment appuyés par le comité olympique qui ne cesse de donner des bourses aux maires. Donc ce travail ne va pas s'arrêter. Au contraire, il faut l'intensifier avec les partenaires qu'on a en Europe et ailleurs pour la bonne préparation. Je pense que maintenant le travail revient aux fédérations, accompagné bien évidemment par l'État et le comité olympique et je pense que si on continue, ne pas relâcher et se dire qu'on a encore 4 ans ou bien 6 ans, euh, il ne faut pas se mettre dans, dans, dans cette peau-là. Il faut se dire qu'on a une échéance, ça peut être 2022, pour ne pas relâcher et continuer le travail qu'il faut. Non seulement on va encadrer ces jeunes-là, mais on va détecter d'autres qui pourront faire plus que ce qu'on pensait de ces, de ces, de ces jeunes. Donc le travail va continuer. Maintenant, le reste, c'est une question du comité olympique et Ibrahim va répondre. Il faut s'adapter parce que le sport ne va pas s'arrêter. On ne va pas refaire des stades et les fermer en attendant 2026. Donc, si on pêchait au niveau de la gestion, il faut qu'on se, réveille pour avoir une bonne gestion de nos infrastructures et permettre aux jeunes Sénégalais de pouvoir disposer de ces infrastructures. On ne va pas attendre après pour les remettre en marche. Donc si Demba est terminé, ben, je parle comme ça, si Ibamar est terminé, il n'y aura plus la même gestion qu'avant. Permettre à tout un chacun de faire n'importe quoi. Parce que nous nous inscrivons dans une dynamique de recevoir le monde ici au Sénégal. Donc il faut se donner les moyens de gérer ces questions-là. Aujourd'hui est 2026, si euh, les opportunités et les situations l'exigent, de signer des avenants. Donc pour compléter un peu, et le plan d'édition qui est en passe d'être signé euh, à la fin du mois de juillet, et la co-construction qu'on peut également rebâtir au regard de la nouvelle situation. Ça c'est évident, je pense que euh, vous aurez l'occasion et l'opportunité de nous revoir et on réajustera ça au fur et à mesure et le CIO euh, lui-même est tout à fait nous envoyé des signaux en nous disant qu'il y a des avenants qui vont compléter euh, le, cahier des charges de base et les engagements du CIO de base pour évoluer par rapport à la nouvelle donne. Vous devez avoir des Jeux Olympiques en 2022, ce n'est plus le cas. Ça nous fait donc économiser puisque nous avions quasiment dans nos décomptes sept mois d'avance. Le Japon, je l'ai dit devant l'ambassadeur du Japon, avait, quand nous étions, nous avait dit qu'ils avaient six mois d'avance. Donc on était, on challengeait un peu nos, amis japonais. Mais sachez en tout cas qu'en termes de coût, il n'y a pas un nouveau centre de coût. En termes de coût, notre tableau des opérations financières est respecté et il n'engage pas d'autres dépenses supplémentaires. Personne ne sait ce qui va se faire en 2026. Mais nous travaillons pour notre pays. Le Sénégal restera ici. Donc il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de personne visée. C'est le pays qui est important et tout Sénégalais qui peut apporter sa pierre le fera, quelle que soit la position qu'il aura en 2026. Merci beaucoup. Je pense que le tour est fait. Et je veux rajouter également, afin que nul n'en ignore, il y a 170 experts de divers horizons qui ont apporté leur savoir et leur temps. Donc euh, c'est totalement bénévole. Donc vous voyez, on est vraiment dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup, Président. Euh, réaction euh, Matar Ba euh, moo conférence de presse bi tey muy waa euh, COJOJ ñu ko doon organiser tey pour en tout cas euh, wax ci li nga xamante moo di report bi waaye itam chantier yi nga xamante mi ngi doon xaar équipe nationale mi ngi mi ngi xaar Sénégal ci Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xamante nag léegi 2026 lay jëm en tout cas lépp loo xamante moom mën nañ ko cee jàpp ni loolu xel mënees na cee dal mooy projet yi nga xamante CNOSS mi ngi koy def ak agence de développement française mu ñeel lépp lu jëm ci Tour de vie Euh, fi ñuy defee box bi wala itam li nga moo di stade Iba Mar li ci des yëpp lu ci jëm ni stade Demba Diop ñu ngi ciy xaar fédération sénégalaise de football ndax ñoom ñoo ko tey stade euh, li ngante xam te moo di Léopold Sédar Senghor ñu ciy xaar ministère des euh, bi nag mooy stade olympique bi ñu ciy xaar njiital moom mi ñu ko digoon moom mi ñu ko digoon absolument ñu ngi koy xaar donc yaakaar naa ne leer na donc seetaan nañu conférence de presse bi et que tey jii nii ñu ñuy ñaan rek mooy infrastructure yi ngan la nag continuer dañ ko tabaxa tabaxa bu ñu xaar 2026 pour mettre en place ces infrastructures man daal loolu moo ma ci gën a intéressé mhm. na xale yi itam am fu ñuy tàggatu Diop mhm. ma bàyyi la nga tàggatoo d' accord waaw di tàggu internautes yi euh, di leen jox rendez-vous demain incha allah mhm. euh, même heure antenne libre ñu fas yéene waxtaanee thèmes yu am tem yu ñu jot a jaar ci semaine bi ak yeneen yu ñu bëgg ñu aborder incha allah suba lay doon à partir de 16h lépp loo leen raté woon ci semaine bi wala thème a waxtaanee mën ngeen ci suba à partir de 16h à